incha allah waaw na dëkk bi toj la ko jara ko jaro seen maama demoon Samba Sadio ànd ak maam Daawud Diop Biram Fay Gilaay sa borom jërëjëf mu mel ni dugg bi am na solo tabaarakalla yàlla yàlla fay waa kër maam Góora Aminata ak waa kër maam Madiou Aminata seen dugg wane ni fonk ngeen bis bi li leen ko doon tudde jar na ko yal yàlla fay leen ñëw xam naa dina ñëw léegi rek du yàgg jox leen seen kaddu ndax fi ngeen ñëwee fi la kaddu gi dugge Serigne Modou Sarr Baye Maodo nee na nañ ko ko gërëmal santal ko ko ndax taxawaayam ci wetam ak teraangaam ci bés bi عاقبتهما أن النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا خاشعا متصدعا من حسية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله والله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر subhanallah subhanallahi amma yushrikun wallahu alkhaliqul bari'ul musawwir lahul asmaa'ul husna له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت هيت لك وقالت هيت لك قالت هيت لك وقالت هيت لك راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت

la yuflixu zaalimuun sadaqallaahu al-aziim doyoon na alxuraan ji rekk doyoon na ci bis bi ñu leen tudde ngeen jàng fi alxuraan ju mel nii doyoon na teraanga kon na kàddu gi sëriñ Mamour Mbengue ci yéen jëm directement incha wa ala wa sahbihi wa man wala mbokki assalaamu aleykum wa wa barakaatu ñi ngi ñaan sunu kàddu gi fekk leen ci jàmm nuyoo bi dañu ciy jiital ki yàlla jiital ci sunu kanam ñun ñépp ca mooy sunu baay sëriñ Assane Seck mi nga xam ni moom mooy xalif généralu ba ak li ci aju xam ni toogaayu maam Ahmadou Ndaak mi maam Cheikhu jiitaloon mag ñëpp nangul ko toogaay boobu la toog kon ñi ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal fanu gudd gu ànd ak wér gi yaram di nuyu mbooleem njabatu maam Ahmadou Ndaak ci ñetti was yëpp waa kër maam Taala waa kër maam Ibra waa kër maam Madiké ak li ñu meññ ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara samay soppe laa fi fekk di samay xarit bu ma neexoon jaar ci seeni tur ñoom ñi sant sekk kenn par kenn ndax yàlla moo ñu boole waaye ku am lecture mbooloo di nga mën a doyloo loolu ci nuyoo ca kenn soog a jàll di nuyu sunu baay Serigne Maodo Diop mi nga xam ni tey moom la yàlla teg ci njabootu maam Daawur Jóob mi nga xam ni yàlla moo leen boole woon ak maam Cheikhu Amadou Ba yàlla moo leen boole woon ak maam Amadou Ndaak waaye yàlla moo def mag ñi comme duñ juum duñ jaawale bi mu génnee àddina sunu maam xam ñi ma gën a sopp ci réew mi ci la bokk muy maam Momar Talla Seck nit ñi ma gën a marqué ci histoire moom da cee bokk daf ni kii kat bala ñoo jëm ci moom ci lenn dañuy bàyyi mbokkum jihaatam ñëw maam daa war fii fekk na lu jiitu loolu njabootu mbuubeen ñëwoon na wettali si ko fii muy sunu maam Abdoulaye Mbuub mi doom maam ma jimbi sàmba Sadio maam daawur déparé fii dem cana ba julle maam góor a Aminata xam naa sëñ Baye Sëriñ yéen en tant que historien bëgg naa ngeen xoolal ma parce que dañoo tollu ci nag rassemblement de la grande famille de Samba Sadio nañ ma xoolal armeelu Thiénaba ñi dem ci jihaad ji ba pare ñu jam leen ña ca wetti li maam Ahmadou Ndaak ca biir armeel ya loolu neen ko recensé en tout cas maam maam góor Aminata boobu moom ci la bokk mi ngi tëdd foofu ci wetam di ko wetti li mbokk ci présentation bu gàtt ci famille boobu dañuy wax ni keroog ba diine soxla mbuubeen léppam la joxe lan mooy loolu maam ma jimbi aminata mooy magu maam góor a aminata ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay ca xamuñu keneen ku bokk ak ñoom ndey ak baay xamuñu keneen ku bokk ak ñoom baay bi maam Cheikh Amadou Ba di woote xam ne seen lettre ñoom jaarul ci kenn ndoj sey la ñëw da fekk seen waajur di maam mataal bi mbuub di woon sëriñ daara génn àddina bi lettre bi ñëwee maam ma jimbi ànd ak maam góora ñëw ci seen yaay sunu maam aminta mbuub ñu wax ko xibaar bi mu leen a ah, tee kon yéen ñaar kenn dem kenn toog maam góora mi rakk ji ni ko yaay bu fekkee damaa dem man ci xeex bi ma des fa am fa shahada ndax ëllëg bu ma yàlla fay ndax dina ci dinaa ci sedd sama mag wala man bu ma seetaanee ba moom mu dem am fa shahada ñu rey ko ci yoonu yàlla ëllëg buy seddu ndax man dinaa seddu seen yaay lem leen jàngaloon ndax ñoom ay doomu soxna lañu mu xam ko muñ ko mu defar njóor ndi ni mag ñu baax ñu daan def di nga daan gis ci saxaaba yi kenn bu xeex amee nga am kenn kese ni ko aca fii sabilillah maam aminta waajal ñaari doomam ñu dem fekk ji maam Cheikh Amadou ci tënk ci tënk amul benn xeex bu maam Cheikhu Amadou Ba ànd ak maam Ahmadou Ndaa xeex ko ca maam Majimbi ak maam Gora ànduñu ci Mboubène nag seen histoire duñu ko wëri archive nationale de de bouche à oreille la mooy dañ ko jokk jollante nopp ak làmmañ lan mooy loolu maam Gora mi rakkam mi ngi judd 1823 génn àddina 1933 mu dund 110 ans maam ma ji bi même mag ji du juddu avant 1823 génn àddina 1875 kon 1875 bu fekkee xeex bu ba ca gën a siiw ca mujj ca ba pare toogaat ba 1933 ñaata at nga dundaat ci ginnaaw bi yàlla moo defal tawfiix maam góor Aminata mu dund ba maye am caatam képp ku am ci doom ju góor dem nga ma nekk muskàllaf sa bàyyi naan dama ne nga naan ah. mu wax li xew waa mbubeen seen histoire foofu lañ ko jële ñi mujj a wax ak maam Cheikh Amadou Ba ca champ bataay ba maam góor a aminata ci la bokk xam nga lu tax góor a amee accu yaakaar naa ñëpp mi nan ko dama ñëw ciisee genn takk bu fa am sama turandoo sañ Maam maa ngi lay wan sama cofeel ci yow bàyyi alaaj taali Cissé daal ni takk ñu amee amoon ciise ci jàkka gi mu ne waa mbubeen da ñëw nañu ñii day mu ne nangoo naa ci génn góor mu nangoo ci maam Momar Talla Seck mu ne keroog ca xeex ba maam Cheikh Amadou da doon xam ne ko accu góor ami accu nag ku naan doy na doy na mooy kon xeex bi xanaa jeex na ba pare nga continuer di xeex histoire ni koy jàngee bokk na ci ñaari version yu ñëw dëppoo ca bokkuñu fu leen jële dama dem luga may jàng sama histoire maam feneen soxna sa maam góor a sama maam mu duma tar Seck di ma jàngal histoire maam Ndoumbé Matar Seck ba jàll ci kaw ma ne ko maam yow sax maam Ndoumbé Matar sekk mi ngay wax nii sëriñam di maam góor a aminata mi ngi cana boobu mu ne ma yow kay bul yàkkamte xanaa waxoo góor a amee accu ma ne ko ah góor a amee de xam naa ko mu ne bala ngaa dem nag dinaa la wax lan mooy góor a amee accu ñun waa Louga góor a amee accu lañ ko xamee ndax xeex ba ca sàmba Sadio day xeex ba sëriñu tukulóoram ba naan ko góor a amee accu góor a amee góor a amee accu kon ñaari version ngi nii yoo xam ñoom bokkuñu fu ko jëlee te ñoo bokk lu ñu wax ñu seddu fa nag ñetti bal sëñ sama turaloo sëñ mam Mor tey nga baal ma yow laa jigéen de man damaa sopp njabootu maam maam maam Ahmadou moo tax tey moom nag ma baal dañoo xeex Samba Sadio ñu seddu ñetti bal bal la fa am xool bal leen dal maam ma ji mi dañ koo dóor bal ci dënn mu daanu bi mu daanoo rakk ji tiim ko mun ko góor yi di përi ñu ma ban xam ne balu kanam lan ma ndax dañoo xam bokk na ci juróom-ñaari bàkkaar yi ñu aw xeet mooy daw ci bisu xare maam góora lancé opération à accu muy xeex ban problème mu bi ngaam wi mag ñii dund moom gis nañ ni maam góor amoon na fii jaal mooy bal bi problème mâchoire bi mu ko ne di xeex ba jam ko ci jëru muy soox loolu moo waral bi mu ñëwee Canaba maam Momar la sekk dëkkal ko lan moo tax mu yeex a ñëw sama turandoo mooy dañoo pare maam Cheikhu Amadou Ba daal ni joxoñ naa leen al mujahid maam Ahmadou Ndak mag ñëpp na ko amul si amul sikk ak sàkk ñëpp na ko ko maam góor leen ngeen baal ma bala maa talagul fan laay dëkk dinaa xam sama njabootu mag fan lañ fan lañ ne parce que après guerre bi jaar nañu ndoj sëy moom ay capture jàpp ci njabatu mbubeen gi maam góor a nit dinaa xam maam Cheikh Amadou Ba ma ñu woowoon dëkkam ba faaw ma dellu fa maam góor a di topp njabootu mbubeen pendant vingt et quelque di leen dajale ba ki mujj a gis doomi boppam la muy maam Modou Sena Ba xam ni moom ñi ngi ko fekk xombal te maam góor benn slogan la yoroon bu ñëwee danaan la bu ko fi xaalis bàyyee xaalis gi nii bu ko fi doolee bàyyee bakkan bi moo fi des après la bataille laa wax de ginnaaw xeex ni zone de tension bi mel la maam góor a doon lëmbe ci boobu zone pendant vingt et quelque ans bi mission bi jeexee mu ni sama mbokkum jihaad ma foofu la bëgg a féexloo ji mu ñëw caramari dama si maam Ahmadou fekk mu wuy ji boroomam mu fekk fi ab taaw maam Momar Talla Seck maam Momar Talla Seck di ko xoole waajuram maam Daawur Diop mi sunu maam ak maam Njaga Diop xalal ko aw yoon pour mu mën a ñëw di soox di ñëw ci jumaa ji bi mu toogee ba maam borom Tuubaa feeñ ci état bu njaarim discours bi nag sama turandoo tenir naa ko ci kanamu sëñ Muntaxa ñu tuddee ko sunu bis mu ñëw wuy si ñu yónnee délégation état bu njaarim ku di murit xam état bu njaarim dina xam état bu xaw na metti la maam góora bi mu déggee maam borom Tuubaa ne ci boobu étape dañu kii ñun ak moom ñoo bokk ku ñuy xeex kon dañ ma gëstul ki ci penk bi ba wootee xeex man góora am yi damay dem ma jekkil fa sama maam maam borom Tuubaa moom day woote jàngale ak yar maam góor a ami ànd ak ñaari doomam ab taaw maam Aliou Mbuub ak doomam bi ñu maam Ibrahima Mbuub dem ba njaareem jox ko maam borom Tuubaa ni ko lu ngeen nekk nekk leen ci ba pare jël juróomi doomam jigéen may leen fa loolu moo tax mbuubeen fami bi ñii di tijaan ñii di murit ñii di leneen sax aussi pour ma jeexal euh, ñun waa Ndiobène mënuñu leen a fay waaye waa Cekkeen mënuñu leen a fay waaye waa Canaba mënuñu leen a fay lan moo tax cana ba ku xam histoire da ngay silvise noo fay dundee ndax mag ñi bàyyiwun ku mu neex dëkk dañoo wut ab sélection boo xamante ni bii état islamique la ñuy taxawal kon war nañoo xam état bi lan la ngeen dañu ñu bis bi mu rëy ci ñun lool waaye yàlla dafa dogal sëñ Maam Mor fii ma toog teewlu naa njabootu maam ma jimbe ak maam góoram fukki daare alquran xale bi tëbul tëb rek di jàng alquran de kii mooy sëñ ngañ mbuub doomu sëñ majj bi mbuub ak soxna away njaay mu sëñ ibrahima mbuub mu bàyyi mor faati mbuub mu maam cheikhu mbuub mu maam mujj bi aminata bu ma neexoon njaay càllal papaam ba mu dem ca maam bay di ca maam mujj bi aminata mais du man mi wax sant mbeng lu ma booleeg mbuub doomu soxna ndey faatu mbuub doomu Majumbi Mboup al ibn xam ne turandoo ma tëdd Samba Sadio doomu maam Gora Aminata kon man descendant maam Gora Aminata direct la macha allah ñi fi nekk ñëpp maam Majumbi la ak maam Gora ma ànd ak sama nijaay Talla Thiané Mboup mu teewal sunu xalifa Baye El Hadj Cheikhou Thiané Mboup ànd sama nijaay Serigne Ibrahima Mboup ànd ak sama nijaay El Hadj Amadou Mboup waaye samay mag dinaa ci sepp sëñ Cheikh Mboup alquran dinaa ci sepp sëñ Xonn Mboup dinaa ci sepp sëñ Ibba Mboup sama rakk yépp seen mag ñi yóbbaale na leen géew fukki daara te juróom ñëpp jàpp nañ conférence ah jigéen ñi moom fii toog sama impañ bàjjen maa ne mbub sama impañ Fatou Ngom sama impañ na koy sekk baal leen ma ndax du ñu ñëw ba pare mënuñu bis monopoliser la parole loolu communication laa jóg kon tudd rek sa xel bu rafet moo koy àggale fukki daara ci mbuubeen teewlu naa leen ci juróom jàpp nañ conférence bul àggee ba le neuf bii di ñëw daaray Baye Majum Mbuub Serigne Cheikh Mbuub Tailleur mooy directeur ba dañuy conférence bu ñu demee ba le 11 daaray Baye Modou Sène ba Mbuub soxna Assou Ba mooy conférence bu ñu ba le 19 man mi wax ak yéen daaray soxna Ndeye Fatou Mbuub mooy conférence bu ñu demee ba le 25 daaray Adja Binta Thiaw numéro 1 Serigne Cheikh Mbuub Alquran yor ko mooy conférence bu ñu demee ba le premier le 2 juin daaray Maam Makhtar Seck sëñ Amadou Seck di doomu sëñ Ibrahima Penda Seck musulmaan Jale Mbuub mu maam Cheikh Mbuub mu maam Majum bi Aminata mooy conférence ak yeneen daara yoo xam li mu ma leen parce que jàpp ñu conférence te fukki daara yooyu juróom juróomi yépp ay jigéen ñoo fa yor di ko jàngale kon daal dafa bokk ci ni mbuub di jàppale di liggéeyale mag ñi nañu xam ni fii ba yomal xiyaam ku samp daara ba wala nga ayu ci canaba maam booy moo ne woon alluwa àll ba allahu akbar te yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku tegtale aw yiw ku ko def dan lay fay yiwu tool ni ka ko def te du ko yàq ci aw yiwam dara kon fii ba yomal qiyaam ku bokk ci Thiénaba jàngale alquran maam Ahmadou Ndack sekk dina ci am wàlla bu ko defee nag incha allah ñu sëñ Baye Sëriñ dañuy wane sunu mbégte di def loo xamante ni bii bala maa joxe sama enveloppe suñu bàyyi sëriñ benn minute dinaa ko soxla wala ñaar xamoo tax yéen a wax ni maam Njaga jóg ci ndigalu maam Daawur Jóob moo xàll gërëm maam góor di fa jaar dem fan fu mu doon dem jàkka ja très bien man quartier maam Daawur Jóob laa dëkk Thiénaba quartier maam Daawur Jóob laa dëkk Thiénaba chef de quartier bi mooy sëriñ Cheikh Tambidou li ma boole Ngoubène moo ko boole Ndiobène maa ngi adressé la parole sama soppe bële xam naa na ngeen tur muy professeur Serigne Diop ndax man damaa bëgg Thiénaba kuy doomam rek foo nekk champion rek may neex professeur Serigne Diop bi may nekk fac droit ndax ñi ñi xam ci man jàngi français gi mën naa bañ a bari waaye def naa ko am bac plus sept booba man ñun ñooy xale droit yi moom booba kilifa yi lañu doon jàngal jàkka ji nekk kon yu maam Daawur Diop ci Thiénaba se yàlla dafa def ci chantier la nekk bu tawee dañuy génne seeni moquette ma bëgg bu fekkee ñu nit toog nii limaam Ahmadou Ndaak liggéeyoon saf nañu limaam Daawur Jóob liggéey saf nañu limaam Majimbi ak maam Góora liggéey saf nañu du ñu bàyyi suñuy kër bu tawee du senn suñuy néegu xar bu tawee du senn ñu mën a bàyyi déegu yàlla ci koñu kilifa ku toll ni maam Daawur Jóob muy taw muy seen ma bëgg képp koo xamante ni bi loolu yëngal na la nga fekk ma fii de xaaral ma ñëw rek tegal ma ko fii sëñ Baye Sëriñ may ma ma joxe sama joxe ñu benn waaw kay dama ah, ah benn minute dama bëgg dama bëgg ñu ñëw fii joxeel ma luñ def ca ciment ba war na ko de te nag ñun fu ñu dem am na suñ ñaari wëlëre yu ñuy àndal ak ñoo service wéy ba orange moo ne ana waa Ndiobène jox leen ma numéro wéef bi numéro wéef waa Ndiobène man nag ku joxe neex na ma mais sama soppe ba leen di professeur Serigne bu joxe dinaa kontaan lool tegal ma fii tegal ma fii aka neex ma ay dama si ma bala ma fay jógee Serigne Diop ngay benn bakkanu Ibra Gueye sama mag nee na benn bakkanu sunu papa Ibra Gueye nee na bu mu génnee àdduna. moo ko jiital ak i motaar indi ko ca. nee na moo ko jiital ak i motaar indi ko ca. nee na ci laa ko mas a gisee. kon kon kon professeur Serigne Diop doom di Mame Mor Mbaye man xam naa bu ma wootee dina ñëw ma nga ne di ñëw yal yàlla barkeel li nga joxee li nga desee waaye waxama sa naaj tàngo yi nekk Ndakaaru yëpp ni hivernage bi moom bugguma liggéey bi bañ a pare bu defee nag. ànd ak juróomi conférence bu mel di ko waaj. sëriñ ah. bi ah, ko fëgg. mooy battre dix mille yu bari yi. juróomi conférence ah. ñu war a def fu rek xaalis. mais teewul ñoomeen moo ñu ko jaral ba enveloppe bi a weccet moo ci nekk. waaye weccet wi àgg na ci juróom benn fukki junni muy trois cent mille francs ah. li ko waral nag mooy dañuy préparer juróomi conférence ci un mois war a intervenir fépp. waaye bu yoon jeexul waa asul du jeex kon suñu bàyyi sëriñ enveloppe trois cent mille francs bi muy juróom benn fukki junni ndax tubaab xamul xaalis da koy jox xañ personnalité du trois cent mille mais juróom benn fukki junni la la waa bu ngeen joxe ca di ko xeeb asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kooku mooy rasoolun mooy القيامة يبا ودي فالمين ملاسن مليو إمام الأرمين جون ما كيالين جن بنا بنا بنا أيوا غاني بنا نيلين نين مغل يون تيارا محمد بنا فاتنيني من أما حلما كريم المسائل إذا ما إذا انتما خلايخو خلايخو xalaayiko anda ngargeji sama ken yonti yàlla Muhammad bawaariko tadil xuloob min al ama flayati to sa waxat am jaati moo mi ma maam Daawur moo woote giwrit maam Daawur taxaw gilaay ay sa baro maam Daawur wax ci moom gilaay ay sa baro ku xëri baro rek Daawur gilaay ay ma bara ko liggéey daawlaa min biraan jigéen waaye daawur biram mbay fay ku ma njaay ma séer kunu jaane amari ndaak maa sigi bi jéen maa anta faal sàq ma xëy te maaliku ma joogu njukki biram yaasin bu bu ma ko a jukki li maa samba tàkko amari ngooni ma la man ci fu njoogu kooku amari ndaagee maamam mam daawur ab saatooy maamam ak jëmbu ñaasa ak ibra penda ak momar taala ak ma dikke roqoya géy bi jéen sigi maa sigi maa samba anta faal sàqa ma xayta maalikuma njoogu njukki biram yaa si bu ma xoroji kuli maa samba tàkko demen amari ngoone mu la man dee ci fa njoogu kooku mu ñu njoogu la yaa ji tudd ku mbokkal yaali njoogu bay mawdo ak tabara njoogu ak yankooba njoogu njoogu maa jàmbal maa jàmbal diwaan diwaan ñu ko fa ki ndekk daa war a ñañ di ko andi fi ci biir réew mi boo dikkee fii kër xaadimu rasul ngi fi lu ko waral maam daawud fa daa xeex xeex bu mitee mitee Samba Sadio xam ngeen lu mu bataille imprévue bataille imprévue mooy Samba Sadio kenn xalaatu ko woon maam dañoo seexu daa xeex ba xeex ba jeex mu taxaw ci gi ci bi jëm ni diine dari ma sox yi jeex na ci réew mi soxla yee fi des Sénégal fi gis guerre mukk soxla yi nag mooy ko ama soxla na ngeen ko dimbali teral ko muy nag kon léegi nag ñëpp jugg ci dex gi mbi jëm ku nekk jàpp julli ñaari rakka ñu def ko mu diine dari ma léegi nag yeyu naa leen damay dem maam daawur ni ko déedéet du la bàyyi képp nga jëm fuuta dañuy ànd ak yow ba fuuta soo ko wàññeeku ñibbisi maam ma paate jaañ topp ca maam yaa ba xëri maam topp ca ak ñooñu àndaloon ñëpp moo tax bu kër Xaadimu Rasuul toogee fii waxtaan ci tànt bi dinañ xam ne Ibra Pende bu yow moo ko waral sëñ Ousmane Seck da daan toog fii di fi wax sëñ Mor Talla ngi nii toog ak njabootu maam Ibra Pende Seck Ibra Pende bu yow yaa jàng dëkk kokki Pende bu yow Jóob bi tudd xëri maam la bokkat ak Marème Mbang Aminta Samba Aminta Matar Aminta Aminta yële saa xewra Fatma borom juróom bi la ngay essa Fatma ak ma ko rëjal koddu Samba ak Joor daa taawlu tudde ko yaayam moom Ibra Penda Buyo jox ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul Momar Anta Sali Kan Balaay Siburi Serigne Mbàkke Maaram moom ci ay seex ñu ngi ba xëri maam gii mu teg ca keneen soxna Fatim Mbàkke jox ko Omar Mbàkke waaye ku bokkalaat Sadio bokkal moom ci Mamadou Fall ak Fati Fall nu jël Fati jox la kumba ñuul maam Dieng war xam mbooj ma ngi le braak ca wàlla fara kondaama aminta aram Diop moom si Cheikh Faty Fall Mbacké soxna Faty Mbacké jox ko sëñ Modou Moustapha moom soxna Daba mu ngi nelawee njaareem mu jël ko nag jox ko sëñ Basiiru moom ca aminta Basiiru ñu jox ko sëñ Modou Boussa Dieng moom ca Abo bi mu nelawee jox ko sëñ Moustapha Lo ca Ndaam moom ca Musli Lo ñu jox ko sëñ Moustapha Mbacké sëñ Abdoulaye Mbacké ñu soxna foofu Sadio nag jox ko maam bu Kunta ca Njaasaan moom ca Alaaji Mamadou Kunta ak Aysata Kunta Alaaji Mamadou Kunta Sidi Lamine Kunta Bekaay Kunta Omar Kunta Yaxya Kunta Fatma Kunta ak Aminta Kunta waaye kuñ bokkal Seydina Seexu Amadou kooku ku mu xanaa est xanaa kura tafsiru ku mu bokkal jëriyaa tafsiru waabu tafsiru rakki tafsiru awli tafsiru waaye nag bu demee ca kum bokkal xanaa xaadim la bokkal ak Mamour Diarra borom saam kum bokkal sëñ Afiya Mbàkke kum bokkal suñ Afia ak maam Cheikh Anta ñoo bokk ndey ak baay ak suñ Cheikh Coro Mbacke ak suñ Balla Coro Mbacke ak suñ Cheikh Absa Mbacke ak maam Mbacke Anta Ndiaye ak maam Fati Anta Ndiaye ak soxna Kumba Tayba ak soxna Khady Mbacke ak suñ si Masamba Mbacke caat ma soxna Issa Dieye Diop moon ko jëme te njokk ma Samba Anta Thiebo moo mu doon pende bu yo moo tax bi ne maam Ceerom ñu soxna Fati Issa Fati Njaga Issa ca kokki moo du faa ko jëm ma ta be soxna ñaan maram xaay Anta Ngone Alaaji Sëriñ mu yow bokk ci ministre yi ñuy audit ma ne ma sama géer laay waxal ku am sa géer da ngay bàyyi ñu wax ak moom alaaji sa da ngaa sigal tariixa bi ku dikk fii di nga xam ne sigal nga maam daawur ànd ak Baye Maodo nga fab lépp jox ko maam daawur ba mu jeex tàkk xam nga sa kër gi ku fi dugg di nga xam ne bàyyi nga xel maam daawur gi laa ay sa baro ma baro ko jugee daal amit biraan jigéen biram bépp ko man jaay sekk ma ko nu jaani xuma kooku bàyyi baa xam ni fonction bari gouvernement bi dénk na la ko ngay bind constitution bi fees dee nag droit képp ku fi magistrat ci réew mi xam nga kuy alaaji Serigne Diop nga seet wicc maandu toog xam nga ni mbooloo mii macha allah tubarkalla ku nekk ngi lay xool lu ko waral si liggéey bi set ci gouvernement bi zéro faute yan yàlla fa la cat si gën nga maam Daawur si gën nga maam Njaga si gën nga Baye Maodo si gën nga Xaabaan si gën nga tariixa cene ba ndax maam Amari bëggoo sax tiitar bu bëree bëri keroog boo fa ñëw da nga yolli ku ndànk ñëw dox la ngay dox ñëw yow man nga nekk président de la république ndax maanu nga yiw nga yaru nga tedd nga am nga xam-xam macha allah tubarkalla moo tax bu la waxee nag ne la fii yaa fi toog ñëpp di la xool gàcce nga laa ma serafot man xamaa li ma wax bu baax a baax ku yiw nga ku maanu nga kenn mën laa jox benn infraction fii ci gouvernement bi tey nga toog ministre bu nekk ñu ngi lay woo fi mu ne ñu baree ngi rëf rëfi waaye yaa ngi toog fi nga ni dégg ndax yow amoo benn fot zéro faute zéro faute zéro faute alaaj nee nañ mu ngi jéggalu ñëpp ni sàkku ñëpp jéggal nu nee na topp borom bi yàlla nañu boole ñëpp jéggal nu nee na kàddu yi nee na mu ngi jéggalu sëriñ Maodo nee na dina ko tënk lu man mën nee na xalaatuñu woon ni kàddu gi dina yegg si heure bi sax nee na li tax muy jéggalu moo di dara gënul metti nit di wax nit di wax nga koy soññi nga koy soññ ndax bëgg a gàttal waaye ci biir tànt nee na waaye biir tànt bi ñëpp wóoru ñëpp wóoru ko de. waaye bu doon ñett wala ñeent. nee na bu doon wala ñeent. xam naa ni. xam naa ni. seenu wér. mayu leen. ñu ñëw fii ci tànt. ñu ñëw fii ci tànt bi di bas. xamul nan la ñuy def. nee na xamuñu nu ñuy def. moo tax ba ñoo ngi toog na ca timis ba léegi nag ñu ngi toog. looloo nee na looloo taxoon. ñu bëggoon a gàttal yéf yi. Serigne Maodo. nee na Serigne Maodo. moom ak ñim jaboote. moom ak ñim jaboote. ñi ngi ànd. ñi ngi ànd. di beesal. di beesal. kóllëre. kóllëre. kilifteef. nangu. nangu. topp topp. jëmale ci. jëmale ci. sëriñ Canaba. Serigne Canaba. Baye Serigne Assane Seck. Baye na maam ya defoon. na maam ya defoon. bàyyi defoon. bàyyi defoon ko. tey ji mu toog toogaayam bi nee na tey mu toog toogaayam bi ku ko bëgg a dimbali. ku ko bëgg a dimbali. bëgg koo jàppale. bëgg koo jàppale. ci koy fekk. ci loolu nga koy fekk. kon sëriñ As boo demee. nee na sëriñ boo demee. ci bàyyi sëriñ. bi. sëriñ Maodo nee na. nga ko sëriñ Maodo nee na. ñoo ñoo ngi beesal. kóllëre démb yi. ak bërki démb ak bërki njaboot gi yeewoo ca na ba nee na njaboot gi yeewoo ca na ba sekk. ak gi yeewoo fii. ak gi yeewoo fii. genn la genn la. lépp. nee na lépp. maam Ahmadou Ndag. maam Ndag la. digganteem ak jarbaatam ba. digganteem ak jarbaatam ba. damay wax ni. day wax ni. comme woote bi. comme woote bi. da koo fekkoon ci daara ji. da koo fekkoon ci daara ji. muy jàng muy jàng. kon maam Amary kon maam Amary ab sëriñam la ci bu wér. fa mu jóge woon. fa mu jóge woon. dem Kajoor. dem nijaayam la fa fekk. nee na nijaayam la fa fekk. ab jarbaatam. comme ab liggéey. nee na la ànd liggéey. ba ñuy dem. am na lu yóbbaale. am na lu mu yóbbaale woon. waaye ba ñu jógee ci jihaat ji. nee ci jihaat ji. yi daa dolliku kon ab sëriñam la. nee na ab sëriñam la moom nijaayam la wéttalam la guddi ak bëccëg. guddi ak kon Serigne Maodo nee na. nee sëriñ comme Serigne Maodo nee na. lépp lu bokk ci maam Ahmadou Lam. lépp lu bokk ci maam maam Daour Diop. ak noo ci bokkee ak noo ci bokkee. ginnaawam ci ginnaawam. dooleel. ñuy dooleel. mu fi nekk. ci jamono ju ne. ak saa su ne. mu mu ngi wax ni. ñii mu bokkal maam Daour. ñu commencé ko ci Serigne Gora Diop. ñu commencé ko Serigne Gora Diop. Serigne Imam Malick Diop. Imam Malick Diop. Serigne Ndiaga Diop. Habib Diop. Serigne Habibu Diop. ak ñu ñi féete suuf. ak ñi féete suuf. Serigne Maodo gërëm na ñëpp. nee na Serigne Maodo gërëm na ñëpp. sant na ñëpp. sant na ñaanal na yàlla ñëpp. ñaanal na yàlla ñëpp. fan wu gudd. fan wu gudd. wér gu yaram. wér gu sutura. ak jàmm jure dëkkandoo yi ko wër. na dëkkandoo yi ko wër. ndax nii xabaan bindoo. ndax nii xabaan bindoo. ku ñëw fii. ku ñëw fii. juróom-ñaari kër nga fi fekk. juróom-ñaari kër nga fi fekk. wala fukk wala fukk. waaye xaban waaye xabaan. aw tund la tool yi moo taxoon. nee na tool yi tasaaroo. kër tasaaroo. waaye pay bi. ëtt bii la ëtt bii la. Euh, muy séeréer. muy séeréer muy wolof. muy wolof. lépp muy népp. njabootu maam euh, Daour Diop. la kon ñi fi nekk dëkkandoo. nee na kon ñi fi nekk di dëkkandoo. sant nañ leen. gërëm nañ leen. lii mu aayee wattu. nee na li mu wattu. ci wàllu diine ji ci ak nekk borom dëkk bi ak nekk borom dëkk bi. ñeneen ñi mu seqal. nee na ñeneen ñi mu seqal. ñuy ay naataangoom ñuy yor ay dëkkoom ñoom. yor ay dëkkoom ñoom. rafetlu na rafetlu wi nekkin wi. ak jëflante gi ak sant na ñëpp nee sant na ñëpp. gërëm na ñëpp. ñii fi nekk di autorité administrative. nee na ñi fi nekk di autorité administrative. toogal fi préfet. toogal fi préfet. toogal fi gouverneur. toogal fi gouverneur. toogal fi ministre de l' intérieur. toogal fi ministre de l' intérieur. toogal fi premier ministre. toogal fi premier ministre. ba àgg ci président de la république. ba yegg ci président de la république. Serigne Maodo nee na. Serigne Maodo nee na. rafetlu na. rafetlu na jëflante gi. jëflante gi. di leen ñaanal yàlla. nee na mi ngi leen di ñaanal yàlla. lii leen yàlla jox lii leen yàlla jox. yàlla na leen ci yàlla defal ndam. yàlla na leen ci yàlla defal ndam. bi jaay Seydina Mohamed. bi jaay Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. monsieur le maire bu Tasset bu Tasset. ndax Xabaan. ndax Xabaan. ci commune Tasset la bokk. ci commune Tasset la bokk. kon nag. kon nag am na lu mu monsieur le maire. am na lu ñu seq ak monsieur te jëflante tam. te jëflante rafet na waaye bu gënee rafet nee na waaye bu gënee du wàññi dara nee na ñu koy sàkku tamit. monsieur le sous-préfet nee na monsieur le sous-préfet. ñëw na fi démb. ñëw na fi démb. woote naa fi. woote na fi. ñu ni ko ñu mi ngi noonu dem. nee woote na ñu ni mi noonu dem. taxaw nañu. taxaw nañu. kéem te lay kàttanam. waaye fa man manam yam. waaye ni fi na mën manam yam. la ñu bëggoon la ñu bëggoon. mooy nañu jàllaleel. nañu jàllaleel. ite yi ak aajo ak aajo yi. ci borom réew mi nag. diggante nee na diggante bii. taseet. jëm ci xabaan. jëm ci xabaan. yoon wi kat. neexul. te jëm ci si mu mel nii. te ci ci mu mel nii. sañse bay bëgg ree. sañse ba rafet. sañse ba rafet. jaar ci pënd bu xonq. bii nag. neena na nag neexul. neexul nee na nañ ci jàppale. ab ëtt la. nee na ab ëtt la. nee na këru diine la. jàmbaar moo tëdd fii. kon yoon wi nañu ci dimbali. njaboot gi njaboot gi li ñu mën a dimbalee sous préfet ak yor ndomba yu mel ni moom ñu yor ndomba mel ni moom moo ñu jub jubal tey juboo ñun ñëpp nee ñun ñëpp loolu moo ñu war ak fu waay yi réew mi pour mu mën a dem foo ñu jub jubal te juboo tey jubbanti nee na nañ dolli koo góorgóorlu gën a jaamu suñu borom keneen nekku fi leneen nekku fi waaye mën a wéeru te du borom bi te bis dina ñëw gendarmerie incha allah. di ngeen baax. nee nañu góorgóorlu bu baax loolooy sagal kilifa yi gëbal dëkkandoo yi sagal ñi yor responsabilité bi. bi ma waxee sous préfet sànq. bu mu waxee sous préfet sànq. nee na mu yóbbaale na chef de service yi chef de service yi. na day def sa su gàmm si jubsee. dinañ dem ci bureau dinañ dem ci bureau waxtaan ak moom feeñal ko suñuy bëgg-bëgg. feeñal ko suñuy bëgg-bëgg. lam ca def na ko def gërëm nañ ko bu baax comme gërëm nañ ko bu baax. commandant Mbéti. commandant ñu ngi koy gërëm ñu ngi yaa ngi nii taxaw. waa hydraulique. nañ leen sant nañu ndox sant nañ leen service yëpp hygiène waaye pompe si nañ dëkk bi pompe si nañ dëkk bi la leen war ñeneen la war def nañ ko def nañ ko ci lijjanti ci lijjanti am na ñu fi ñëw am na ñu fi ñëw defi consultation defi consultation loolu lépp loolu lépp dafa taaral bis bi dafa taaral bis bi Serigne Maodo doon gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp dafay nekk nag nee na dafay nekk nag di doxal di Awa Diop bàjjen aji Awa Diop ci lu biir ndax tey jii nee na bàjjan awa moo fi des ci lu maam daawur jom meññi kon ku bëgg maam daawur waaye ku ko war a sopp te gisoo ko bàjjan nga war a jàpp ak sa fukki loxo juróom sëñ Maodo day ay tànkam di ay bëtam di ay loxoom waaye suñ teeralee ñun ñëpp ci kanam lañ war a dem jébbal ko liggéey bi wax ko yëf yi ni mu demee kon yàlla na ko fi yàgg la yàggal te mu wér nee na dëkkandoo yi mbokku njay yi wax na ko tey ci bëccëg dalu càmmoñ la dalu ndijoor nee na boo ci sol bàyyi moromam naaj sonal la wala doom taar nee na waaye mbokki nja ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay yi nee na ñi ngeen tuddee bis bi na ngeen ñu ñaanal sas wu ñu commencé la. sas ñu yàlla. mu yam ci. maam góor Aminata. ak maam ma jimbi Aminata. ndax seen maam. te na bëgg yëpp. ñoo ko lebal teranga nag. nee na teranga jooju lañuy jéem a fay. nee na kon bu déwénee. yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm. ña nga jëm ca meneen maam. bàkkaar ñu dajal nee na loolu daal gudd mu gàtt mooy li mën a génn ci jamono tënk ñu waxtu tënk ñu Serigne Maodo yëf yi mënoon naa gën a gudd sant lu nga bàyyi Serigne Diop sant lu nga général Seck docteur Mohamed Diop ak ñu mel ni ñoom ñëpp a ngi ci biir cant yi waaye bis bu mel nii bu amee dafay yàlla. yenn jàmbaar yi bokkoon ci ñun te jiitu ji ñu tudd leen dolli leen ñaan ñaanal leen yàlla soxna Awa Njaay Jóob Serigne Alpha Diop Serigne Alpha Soxna Boy Diop. Soxna Boy Diop. Soxna Kumba Tayba Diop. Soxna Kumba Tayba Diop. Serigne Ousmane Diop. Serigne Ousmane Diop. ak ñi mel ni ñoom. ñoo daan bokk bis bi ñu bokkoon ci taxawaay bi. yàlla yàlla dolli seen yërmande. dolli seen jéggal dolli seen sutura. Baye Serigne Thiénaba Baye Serigne Thiénaba li ñu wax moo di li ñu wax moo di délégation baa ngi nii délégation baa ngi nii sëñ Asa ngi nii sëñ Asa ngi ak ñi ko àndal ak ñi mu ko àndal defe naa dina leeral ñi mu ak kenn ku ci nekk sa wàll sa ko jox dana la ko jox professeur Souleymane Dia professeur Souleymane Dia tudd ma ko tudd ko ndax li mu dëkk moom wala ñu gorowoo wala ñu gorowoo dafa am taxawaay boo xam ne bu mat sëkk la bu mat sëkk te ñun ñëpp la ko taxawal kon jotaay bu am kon yàlla na yàlla ñu tudd ko sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla professeur loolu tax ñu tudd la waaye du leneen yàlla yàlla dolli sa sutura ngeen bal ñu ak waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci biir ci annonce yi ci reportage yi démb rek ci guddi dañoo mujj convoqué waat pour mën a defaat beneen table boo xam ni ñi ko seetaan ñëpp xam nañ ni yéene ju am solo te loolu bu amee ñoom ñoo ci taxaw ñi ngi gërëm directeur ba di Serigne Alpha Sarr ànd ak Serigne Moussa Ndiambe Gueye nga xam ni moom sëtub Mame Dawour la waaye daa jàpp bëgg kër Mame Dawour tabaarakallah ànd ak Serigne Talla Sarr mi nga xam ni mooy caméraman bi di rakk ci Serigne alfa ak ñi mu ko àndal Serigne Talla Niass ca biir kon wane na ni bis bi seen bis la ñu ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm ñu ngi gis ci jataay bi Serigne Gora Ndiaye sëriñ Gora Ndiaye nag mooy futur maire ñu ngi koy ñaanal yàlla xam ne ci njabootu maam Daawur la bokk tabaarakallaahu chaque année mu ñëw di ko teewee mi ngi ànd ak Serigne xaritam Serigne Talla Seck mu Serigne Cheikhou Seck imam moom it ñu ngi koy wax ahlan wa sahlan kon nag kàddu yooyu moom la ñuy tëjee ginnaaw ba sëriñ bi moom buy wax kàddoom la ca topp mooy ñaan. bu ñaanee nag li ñuy ñaan ñëpp mooy bu kenn dem gàmm gi teraangay ruu yi mooy liñ doon def di jàng alquran di tudd yàlla di def lu mel nii waaye teraangay jëmm yi nag bokk na ci lu mel ni bernde yi ndax gàmmu xabaar dañuy defar bernde yu bari te neex te guddi gi bu tasee rek ñu bari ñibbi ñuy ñaan ren nag ngeen toog ba reer surtout yéen ñu tuddee bis bi toog leen ba reer ngir yàlla boo reeree ba pare ñu naan ndox mu sedd gunge leen ndànk ñi mën a xaar guddi gi ñu xaar ko ndax Pa Abdoulaye Mbuub mi am na lu mu indaale ak groupam sëñ Cheikh Tidiane Ndaw mi boo gisee mu sol lu zone rek teg mbaxane ba ca kaw xam ne am na lu mu indaale waaye Pa Mbuub nee na ma guddi tey ji moom ku ko tardé tardé nga lu rëy kon li ñu ñaan bu ñu duggee ci dal yi reer sangu yees lu wat minuit pile bëgg nañoo tàmbaliwaat guddi gi kon nag ñoo ngi ñaan Serigne Maodo nee na na guddi gi dund ni bëccëg bi dundee sëriñ As borom ndigal kàddu gu ci yow la jëm. tànn kër gi yëpp am naa ci cër rawatina bii te nag at mu ne ma def ko fekke déwén naa ko defaat ndax nu fekke déwén duma ci yàgg incha allah waaye képp ku aw yàlla na nga gis sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sama xarit be lay bégale li may def Oustaz Mbaye dafa bëgg lool Ibnu Muhayyib dem ba ca Kaaba ga dem ba ca xabru Seyduna Muhammad mu jël téléphone bu woo ma ni ma Seydil Bachari Seydil Bachari la may woowee ni ma Seydil Bachari maa ngi nii ci sa xarit bi di la ñaanal yàlla na fa teewaat ñun ñëpp dafay ñu yëkkati ñaari bayit rek barkeeloo ko yàlla nañ ko fekkee déwén ci barkeel bi sallallahu alayhi wa noo ngi ndokkeel ñëpp di nuyu délégation xalifa bi sëriñ ñu ngi lay nuyu bu baax a baax duñ ci àgg incha allah <clears throat> allahuma salli ala muhammadin sidil bashara wa shafi'il mushaffa'i fil mahshar ala muhammadin sidil bashara شفيع المشفع في المعشر خليل يعود بالمحسب وانزلا خليل يعود بالمحسب وانزلا ولا تبخي عن خير في متحولا واكرم به مغنما تحراه منزلا احق عباد الله بالمجد والعلا نبي له اعلى جنان مبوى محمد من البشر المرسلات نبي عظيم الخات رب الحق آه نبي عظيم الخات رب الحق آه نبي عظيم الخات رب الحق آه نبي عظيم الخات رب الحق مرسلا نبي العظيم الخات المرسل يعل بمذ كان طفلا وينحل فلله منه وأعلى وأكمل أمين لإرشاد العباد مؤخلا حبيب بأسرار القلوب منبا صل على محمد سيد البشر وصفع المصطفى في المعصر أفادنا دفيدا وأحمل سعادتنا أفادنا دفيدا وأحمل سعادتنا فساس بذاك الخلق خلينا وشدتنا فيا حبذا منه لمن شاء عمدتنا إمام لرسل الله بدعا وعودة به يختم الذكر جميل ويبدى صل على محمد سيد البشر وصفي المصطفى عظيم الخال ربي الحق مرسلا نبي عظيم الخال ربي الحق مرسلا يعل به مذكى نطفلا وينحلى فلله من هو وأعلى وأكمل أمين الإرشاد عباد مؤخلو حبيب بأسرار القلوب منبو محمد سيد البشر وشفيع المشفع في المعشر سيدنا محمد رسول الله عليه السلام لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلمنا جنابي يسنتي الله julli ci sangu-sangu yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu mbooloo mi yépp kaddu moom bu sooba yàlla du gudd bu nu yemoon ci kaddu yi sëriñ mortala Baye Ousmane mii day day sëg bu dee waare waare na bu dee xuppe xuppe na lu mu a wax ci alquran wax na ko sëriñ bi wax na ko kon kàddoom kon kàddoom buñ ci yemoon rek bu ñu ci yemoon mën a yóbbaale ñëpp géew day yóbbaale kàddu sëriñ bu ñu ñëwee ba dem waaye bu ñu ñëwee nag ba dem te yor kàddu sëñ canaba te yor kàddu bàyyi cheikhu canaba te saanawuñu kàddu te joxaluñu kàddu googu mu yoon am lu muy nëru dafa am nag lu muy nëru maa ngi jégalu ñëpp kon daal maa ngi ànd di jégalu ñu toog ñëpp di balu àq ñëpp di balu àq ñëpp yàlla mi borom jéggal yàlla mi borom jéggal te ku mu jéggal nga am jéggal yàlla yàlla boole ñu jéggal waxal amin comme ni ko sëñ Mor waxee rek comme ni ko sëriñ Mor waxee wér gi léegi amatul moom bareetul rawatina mag ñi nga xam ni rawatina nag sunu mag ñi nga xam dañoo toog ci tànt bi nee na ñu ngi ci tànt bi timis ba léegi timis ba léegi kenn yënguwul kenn yëngu loolu boo ko jàngatee loolu nag boo ko jàngatee li nga xam ni métti na da nga xam ne nag lu yi du gudd kon incha allah du ñu guddal kàddu yi sëriñ Canaba nee na bàyyi ba mu sant yàlla gannaaw bi mu sant yàlla mi ngi gërëm mi ngi gërëm xalifa bi xalifa bi toog muy sunu waajur muy sunu waajur muy Maodo Diop muy bàyyi Maodo Diop yal na fi ngi lay sant mi ngi lay sant mi ngi lay ñaanal yàlla mi ngi yal na yàlla gën la fee yàggal. yal na yàlla gën la fee yàggal. te mu ànd ak wér. te mu ànd ak wér. xooli jaam yëpp. xooli jaam yëpp. aju ci kër gi. aju ci kër gi. aju ci kër maam Daawur Jóob. aju ci kër maam Daawur Jóob. yal na ñëpp nangul la. yal na la ñëpp nangul. fii. fii daal. kenn waru ko fee jiitu. kenn waru ko foon jiitu. ndax. ndax. sunu maam Daawur Jóob. sunu maam Daawur Jóob. ak maam Amary Ndack Seck ak Seydil Mujahid ak bar maam Amary Ndack Seck nañu ànde woon nanu ànde woon démb démb ak barki démb ak barki démb njaboot gi ànde njaboot gi ànde ko tey jii. ba tey jii. su ko wéroon su mayoon. su mooy ñëw toog fii. moom mooy ñëwal boppam ni mu ko daan defee. yàlla xam na ni. yàlla xam na ni. wóor nañu ma àndal. wóor nañu ma àndal. maa ko gàntal. man nii maa ko gàntal ndax xam yaram. ma ne toogal. ma ne ko toogal. mun ma ma dem rek. mun ko nii nga mel. ma ne nii nga ak fii nga toll. ak fii nga toll. ci ag mag. ci ak mag. toogal. toogal ku am kuddu. ku mu woo professeur Souleymane Dia mu woo professeur Souleymane Dia. woo doomam Madiodio Seck. woo doomam jii di taaw Madiodio Seck. woo Assane uh, Moussa uh, uh, woo Baye Mbaye mii di Serigne Mbaye doomam. Baye Mbaye Seck. woo Mbaye Seck doomam. ak Baye Saliou Ndiaye. woo Serigne Saliou Ndiaye. délégation bi. délégation bi. képp ku jóge Thiénaba. képp nag ku jóge Thiénaba rek. ñëw sant sekk nga ñëw sant sekk te santoo sekk te santoo sekk sax ba ci mbubeen ba ci waa mbubeen yi ñu ko tudde tey ci délégation Cheikh Thioro ba nga bokk ci délégation Serigne Thioro Mbaye Assane ci nga bokk ok dëgg Serigne Ibrahim si Ibrahima Seck nii toog mu bàyyi Serigne Abdourahim mi ngi nii toog kàddu yi su ma ko joxoon kàddu yi bu ma ko joxoon dina ko joxal dana ko joxal ni mu rafetee Serigne Baye Diop ngi nii toog Serigne Baye Diop Seck ngi nii toog su ma ko joxoon kàddu yi su ma ko joxoon kàddu yi dina ko joxal dana ko joxal na rafetee suñ ma dikkee ngi nii. sëriñ su ma ko joxoon kaddu gi su ma ko joxoon kar gi. dina ko joxoon dana ko joxoon nag rafet. rawatina. bi. taawu su ma jooja sekk. bi bii. mi ma ko joxoon kaddu yi. su ma ko joxoon dina ko joxoon dana ko joxoon nag rafet. comme li may wax nii. comme li may wax nii. borom ku dudd lakk borom ku dudd lakk sëñ Alpha nga nee toog sëriñ Alpha boobu sëriñ ma dikkee borom yàlla ne ma nga nee toog su ma ko joxoon kaddu yi su ma ko joxoon kaddu yi dina ko jox dana ko joxoon di rafet sëriñ Mamor Seck mi ngi toog sëriñ Mamor Seck mi ngi nii toog su ma ko joxoon kaddu yi su ma ko joxoon kaddu yi dina ko jox dana ko joxal di rafet ñun ñëpp ñun ñëpp nag dañoo tënku dañoo tënku ci kaddu Seexu Thiénaba ci kaddu Mbaye Seexu Thiénaba ñun ñi xam ne ñoo bokk Thiénaba ñun ñi bokk Thiénaba suñuy xol suñuy xol boole nañ ko ba. boole nañ ko nag ba. dañuy yëkkateendoo. dañuy yëkkateendoo. di tëralandoo di tëralandoo. jërëjëf. jërëjëf Seck. yéen yàlla dàqal na seytaan. yàlla na yàlla gën noo dàqal seytaan. yéen a boole suñuy xol. yàlla yàlla gën a boole suñuy xol. yéen yàlla gën noo jàppale. yàlla yàlla gën noo jàppale. ci bëggante gi. ci bëggante gi. ak wóolante gi. wóolante gi ak yaakaarante gi ak yaakaarante gi. sëñ Canaba nee na. sëñ Canaba nee na. limaam Ahmadou Ndaak samp Canaba. limaam Ahmadou Ndaak Seck samp Canaba. ngalla waaye ndaw ñi. ngalla waaye ndaw ñi. nañ ko téye. nañ ko téye. nañ ko fonk. nañ ko fonk. nañ ko nañ ko yóbbu ba sunu biir dëkk ko yóbbu ba ci sunu biir dëkk. muy ñett yi nga xam ni. muy ñett yi nga xam ni. Abdou Ndaak wax na ko. maam Ahmad Ndaak Seck jox ko. su Mor Talla wax na ko léegi. sëñ Mor Talla ko léegi. àll ba. ba. alliwa. alliwa. allahu akbar. àll ba. àll ba. waaye dama nga liggéey. waaye dama liggéey. ba bu ko jox ma. naan ko jox ma. da nga nekk góor goo xam ne. da nekk góor goo xam ne. mën ngaa futtiku. mën ngaa futtiku. liggéey liggéey. ba am sa wërsëg. ba am sa sa bor. kon àll ba. kon àll ba. nañu liggéey. nañu liggéey. ba sàmm suñu ngor. ba sàmm suñu ngor. ba kenn bañ laa yem. ba kenn du la yem loolu la. ba ca tege. ba ca tege alluwa. alluwa. alluwa. nañ jàng. nañu jàng nag. suñu ci la ba nee na. waaye sax ci la ba nee. nañu jàng. nañu jàng. comme ni ko sëñ Mamor waxee. ni ko sëñ Mamor Mbengue waxee. yi bari na. yi bari na. te ku xamul. ku xamul. da ngaa war a laaj. da ngaa war a laaj. sawara bi naan jaxal na ma. sawara bi jiim googu. jiim googu. am na ku tëkku. am na ku tëkku. kan la laa tas al. koo xam ne réer. koo xam ne da réer. nangu woo laaj. nangu woo jàngi. soo faatoo. soo moo lay lakk. moo lay lakk. kon nañ jàng. kon nañu jàng ngir dañu réer. donc ma amoon daag waxee. ndox ko nag bi nu ko maam amoon daag sekk joxoñe. allahu akbar. allahu akbar. nañ jaamu yàlla. nañ jaamu ji yàlla. sëñ Thiénaba nee na. sëñ Thiénaba nee. jaamu leen yàlla. nanu leen jaamu yàlla. sëñ Thiénaba nee na. sëñ Thiénaba nee. nañu bëggante. na. sëñ Thiénaba nee na. loo mën a jàpp. loo mën a jàpp. waxtu julli jot. waxtu julli jot. te nga man ko. te man ko. bàyyi ko. bàyyi ko jaamu ji yàlla. jaamu ji yàlla. yal na yàlla fayal nu mag ñi. yal na yàlla fayal nu mag nga xam ni. tànn nañu yoon wii. tànn nañu yoon wii. ba buñ ci jaaree. ba buñ ci jaaree. ëllëg ëllëg buñ dajee mag ñi. buñ mag ñi kenn du kenn du rus kenn du rus. Pape mag nga. sunu mag kilifa nga. sunu kilifa nga. professeur Souleym. professeur Serigne Diop. Serigne Diop ñu ngi lay sant bu baax. ñu ngi lay sant bu baax. yow de. yow de. su ma nee sama mag nga. su ma nee sama mag nga. xam nga. xam nga. xam naa. xam naa. Ibrahima Diop xam na. Ibrahima Diop nit xam na. yow da nga nekkoon sama taw baay. yow da nga nekkoon sama taw baay baay Serigne Mouhamadou di Seck. mu teg la fu sori. mu teg la fu sori. xam nga bu njëkk. nee na bu njëkk. buñ daan wootee. buñ kenn dugg ca benn gàcce. kenn du dugg ca benn gàcce. da ñëw fekk carte yi teg rek. da nga jël bala neex. nga jël bi la neex rek. daf ca enveloppe daf ca enveloppe rek. def ci biir dugal ci kees gi ñëpp nga gis. am na at moo xam ni. am na at moo xam ni. dañ doon woote. dañ doon woote. ndeysaan xam nga calama ñoom seen sëriñ si ñoom xamuñu adduna. calama moom seen sëriñ si tabaarakalla dañoo dëgg adduna. xamuñu adduna. xamuñu adduna. mais li ñu xam mooy. li ñu xam daal mooy. wóllare wóllare rek la ñu xam. rek la ñu xam duñu ay politiciens. duñu sax ay politiciens. sëriñ calama. sëriñ calama. ñëw toog ci biir dëgg bi ñu wootee. ñëw toog ci fi ñuy wootee. ku ñëw di wootee. ku ñëw di wootee. yow koy wootal waay. yow koy wootal waay. nga di ko diw. nga di ko diw. wooteel sama ndoom. wooteel sama ndoom. damay sëriñ damay. sama baay ñëw. <laughs> sama baay ñëw. sëñ bi li koy woteel. sëñ bi li koy woteel. sama papa sëggum sama papa sëggum nu ko woteel sama ndoom si waay woteel sama ndoom si waay ko déedéet mu ko déedéet Serigne Diop laay woteel Serigne Diop laay woteel sama carte yi sama carte yi bala ñoo xam njëriñ wi bala ñoo xam njëriñ wi ëllëg ëllëg hmm? kon Serigne mii kon Serigne mii première carte première carte ba jëkk woteel Thiénaba jëkk ko koo woteel Thiénaba sama bay la woon bàyyi Serigne Mouhamadou Seck moo ko jox Serigne Diop mii nee na 88 la Serigne nee na en 1988 la. PDS rénovation. kon Serigne kon Serigne Diop. sunu mag la sunu kilifa la sunu kilifa. luñ ko tagg. luñ ko tagg. ci ak mbaax ci mbaax. doyul. fayu doyul. luñ ko bakk. luñ ko bakk ci ak mbaax. ci doyul. doyul Serigne jërëjëf. Serigne jërëjëf. yéen yàlla jàppale yàlla jàppale. wér. wér li nga xam ni. li nga xam ni ku ko yàlla roof. ku ko yàlla roof nga wér. nga wér yàlla yàlla wér. Serigne yàlla nga wér wax na naa bi waay. Serigne yàlla nga wér. ak ñi ko bokkal ñëpp. ak nag ñi ba sëñ Thiam ba nee na bay Cheikh Thiam ba ne boo ko santal ma ko gërëmal ma ko gërëmal ma ko ñaanal ma ko yàlla ndax ndax li mu téel Thiam ba ci biir Sénégal gépp xam nañ ko xam nañ ko gis nañ ko yëg nañ ko yëg nañ ko jërëjëf Diop jërëjëf Mouhamed Serigne Diop waaye nag fi nga bokk waaye fi nga bokk nag faw ah faw nag nga liggéeyal yàlla nga liggéeyal yàlla ku bokk ci deretu ku bokk ci deretu maam Daoud Diop faw nga liggéeyal yàlla faw di gërëm di sunu bàjjan sunu bàjjan soxna Awa Diop soxna aji Awa Diop mi nga xam ne tey jii mi nga xam ne tey daanaka daanaka nag téeméeri atam téeméeri atam su tulit su na ko ah jigéen na ko nag mu nekk mu nekk nag ci deretu ci deretu nag jihaad jihaad maam Daawur Diop maam kon tey jii moom moom rek moom képp mooy dund mooy dund ci koo koo xam ne waajuram waajuram na Samba Sa demoon kooku nag kooku nag ñu ngi koy ñaanal yàlla waaw yow ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gën ñoo uuf mu gën ñoo uuf rek gën ñoo taxaw gën ñoo taxaw te gën ñoo gunge di gërëm di gërëm El Hadj Adi Wade El Hadj Adi Wade jërëjëf jërëjëf Wade yow de ku am kóllëre nga yow daal ku am kóllëre nga ku baax nga ku baax nga ku yiw nga ku yiw nga ku tedd nga ku tedd nga yéen yàlla gën laa jàppale yàlla yàlla gën laa jàppale yéen yàlla gën laa aar El Hadj Adi yàlla yàlla gën laa aar ku la xam démb. ku la xam démb. xam la ak Serigne Diop xam la ak Serigne Diop rek. ku la xam tey it. ku la xam tey it xam la ak Serigne Diop ah, xam la yàlla yàlla gën la fa yàggal. yàlla yàlla gën laa yàggal. nga gën a bokk ak Serigne Diop. nga gën a bokk ak Serigne Diop. ak ñeen ko àndal ñëpp. ak nag yéen ñi toog si yëpp te ànd koog moom noonu ngeen mel moom. ab ànd bu bu yàggee. ànd nag bu yàggee. jikko yaa bokk. jikko yaa bokk. te bokk dëggu. da bokk dëggu. bu ngeen dëgguwul woon. bu ngeen yàgg nii. ànd bi du yàgg nii. jërëjëf Diop jërëjëf seen ànd dëgg la. kaddu yaa ngi gudd. kaddu yi sax a ngi gudd. te guddi gi am na ci wàll. te guddi gi am na ci wàll. te bu ñu continuer. bu ñu continuer. mën nañoo wax leneen ak. mën nañoo wax leneen ak leneen ndax bari waaye ñi ngeen tu bis bi. waaye yéen nag. ah su may daal mooy ñi ngeen tudde bis bi. ñooy canaba. ñooy canaba nag. canaba ñoom. canaba ñooy ñoom. Mamadou su ma saa geestu. su ma saa geestu. day gis waa Mboubeen. day gis waa Mboubeen. ci biir xare bi. ci biir xare bi maam la ci biir maam Góora. mën nañoo wax histoire bi. mën nañoo wax histoire bi waaye xaju fi waaye xaju fi waxtu bi. waaye si Mamor Mbengue waaye El Hadj Mamor Mbengue. jazaakallaahu xayran jazaakallaahu xayran. yal yaa ngi ñaanal ñëpp. sama doom yu baax yi. sama doom yu baax yi. sëñ Daam. sëriñ Daam yu bàyyi ji bi. sëñ Alpha. sëriñ Alpha. ma kontaan ak ñoom lool. ma kontaan na ci yéen. sëñ Canaba daal newoon na. sëriñ daal newoon na. boo ñëwee ba toog. boo ba toog. gërëmal ma. gërëmal ma. xalifa bi xalifa bi di Baye Maodo Baye Maodo Diop di Baye Maodo Diop ak i rakkam ak i rakkam ak i doomam ak i dëkkandoom ak i dëkkandoom sëñ Thiénaba nee na xolom sedd na xolom fii daal fii fee ñëw ñàkk fee sax ñëw wóoru wóoru ndax ki nuy ñaanal soo ko ñaanalee benn boo ko ñaanalee benn dina la delloo fukk dina la delloo fukk ba delloo la sax ba delloo la la nga foogul la nga foogul ci ay teraanga ci teraanga ak ak barkeem ak barkeem. yal yàlla fayal ñu. yal na yàlla fayal. maam Daoud Diop maam Daoud Diop may fay. ku taxoon ak Amary Ndack Seck. ku taxoon ak Serigne Thiam Amary Ndack. moom. moom. ak maam Madio a nuural ci biir aljana. yàlla gën nuural ci biir aljana. bi jaay rasulullah bi jaay rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. daal. kaddu yaa ngi noonu kaddu yaa ngi noonu. ñu ngi sant. ñu ngi sant. ñu ngi gërëm. ñu ngi gërëm. sëñ Mor Diop. sëñ Mor Diop. jërëjëf. jërëjëf. ci kaddu yu yi. sa kaddu yu rafet yi. macha allah macha allah. jërë ngeen jëf jërëjëf. sëñ Ousseynou Diop mii. sëñ Ousseynou Diop mii. moom sama xarit la. moom nag sama xarit la. ma tuddee. ki ma tuddee. magum jëmm la. magum jëmm la. soo ko yónnee tey Dakar. soo ko yónnee woon tey Dakar. mu dem dox soxla yi mu dox soxla yi ba mu àgg. ñëwaat ñëwaat loolu kon day xanaa loolu dama cee bokk. cee na ba xabaar gii dañ cee bokk. dañu cee bokk. ñu wàcc la ba gépp. ñun waa Thiénaba gépp. ci la ñu bokk. ci la ñu bokk. fa tabaarakallaa. ci tabaarakallaa bàyyi Serigne Diop. bàyyi Serigne. bàyyi Serigne coordonnateur Akhlu Cheikh Thiénaba. jërëjëf. jërëjëf Diop. sant nañ la. yow de sant nañ la. gërëm nañ la. gërëm nañ la. li may tooñe Modou Ngom. li may li may tooñe Modou Ngom. dama naan la. dama naan gàmmum <laughs> loolu nag. loolu nag. barke la. barke la ak xéewal. xéewal la ak teraanga la. teraanga maa ngi yemal foofu kàddu yi maa ngi yemal fii sama kàddu. di kontaan lool. di kontaan. su ma dikkee jërëjëf. sëriñ ma dikkee jërëjëf. booy eggee ba ca góor ga. soo eggee ko. bàyyi bi na nu ko nuyul. na ñu ko santal. na nga nu ko santal. na ko gërëmal. gërëmal nu ko. suñu xol seet na lool. ñu ngi waaj incha allah samedi gàmmu borom yàlla. bi ñëpp ñu ngi koy waaj. di wax ni àjjuma la ñu woote xadra populaire bu mag moom la ñu ubbee gàmmu gi ca baar ba. yàlla ko fekke sëriñ bu ma leen léegi waaye ba kër ñoom sëriñ as na seen na la. ndax kër Ndiaga Sarr moom ak kër Cheikh Thiam ba benn kër la. fii ñu yemale kàddu yi. loxo yi ñu bokk nag tàllal loxo yi. ubbi xol yi ubbi xol yi nag. léeg-léeg ñu naan. nañu jàng Fatiha bu sell. nañu jàng Fatiha bu sell. Fatiha ba mu wàccee la sell. lan war a wax kay mooy xol ba koy jàng na nga ko sellal ba teg ko ci suuf ba loo ca ñaan ah yàlla nangu ko kon ñun ñëpp nañu sellal jàng fatihu sell jàng ayatul kursi def yàlla tiif juróom-ñeenti yoon falaxi ak naasi salaatul fatihi bàyyi asan sekk naan xale yi dem leen ngeen jël tariqa bi bay Assane Seck nee na xale yi dem leen ngeen jël tariqa bi tariqa bi nag géej la noo ca xuuse loolu ni ngeen tooyee nanu fexe nag ba tarixa bi nan ci lab ba ca lëgg-lëgg ba bàyyi san moo wax loolu kon jërë ngeen jëf bismillah amin fatiha ayatul kursi juróom-ñeenti ya latif والله الناس في صلاة الفاتحة آمين آمين آمين الله التي بعباده يرزقون يشاء وهو العزيز السلام عليكم ورحمة الله بسم الله خلق من الحزن رحمة الله بسم الله الرحيم خذ رب الناس ملك الناس إله الناس من الشر وخزف الناس الذي يوسوس في صدر الناس الناس السلام عليكم اللهم صل على سيدنا